xam nga sunu borom dafa bind benn univers bu mu séddale ñaar benn bi mu féete kaw benn bi féete suuf ba féete kaw yi ñu dul gis bët mënu koo gis ñoo fa féete baat yi nga xam ni kenn mënu koo tudd ci langue fa lañ koy waxe moom la ñoo tudde al alfaadu namusiya alfaadu namusiya yooyu ci lañu ñu binde alquran bi mu wàccagul motax buñu ko wàcce won nonu yonent bi du ci xam dara motax mu utiliser Jibril mu nek interprète pour mën traduire verbe sacré yi ba mu nek ay verbe sublime bind beneen côté bi yeneen créature yi nekk ci mais créature yi ci nekk yépp benn la ci jox exception bi mooy ki ñoo tudde nit looloo tax yonent yi mu fonk te di leen yónni mu di leen tànn ci xeetu nit waaye ñaari alam yooyu nag obligatoirement dafa war a am benn cohabitation bu am seen diggante mais nubuwa bi ci biir ñaari alam yooyu lan mooy rolam dëgg dëgg dëgg dëgg bu passé standard bi ñu branché ci yonent yi am na leneen lu muy servir Par exemple, li ñoo al usra al shamsiya te mooy jant bi ak planète yi ko wër booy seetlu planète yooyu ñaar moom lañ ci gën miin ndax suñu jonjoo ak ñoom benn bi mooy suuf parce que ci lañu dëkk beneen bi mooy weer wi alqamar mais am na ci biir planète yi bu ñoo tuddee almushtari Le tout va bien di wax Jupiter Jupiter bu si alcool ba léegi gannaaw sunu borom, mën nañ ni rôle ba ci ëpp Jupiter moko jouer. joué ndax yi tout des astéroïdes ak yi ñoo comètes comètes yi mooy li ñoo tudd ci arab al muzannabaat gis nga astéroïde yooyu le presque ñoo écrasé woon dinosaures yi benn rek moo ci jóge ci kaw asamaan si dal ci kaw suuf rey li fi nekk yëpp parce que ay doj lañu mais benn doj bi ci gën a tuuti parfois dana am largeur u dix kilomètres

ci miir bi ñuy miir ñu planète solaire bi te bu ñu planète solaire bi soleil bi dafa am ay genre bec yu nga xamni lu ko qui ci bec souffler ay étincelle te étincelle yooyu bu les comètes yi daf koy exploser bu ko exploser mu nekk poussière bu kenn xamul lu muy doon mais chance bi moo di planète yi ñooy xëccoo pour jël poussière yooyu pour dugal ko ci seen trou noir yi ndax bala muy wàcc ci kaw suuf ndax bu wàccee ci kaw suuf kuy taxawati du am ndax xeetu jàngoro yi muy wàccaali ci kaw suuf bu di astéroïdes yi nag genre ay lu mel ni ay xeer lay doon mais xeer yi à chaque fois mu riir jëm si ci kaw suuf Jupiter boobu moo leen di piéger mu dellu la ma leen waxoon ci suuratu takwir fala uqsimu bil xunnas al jawari al kunnas waaw balayage boobule balayage boobule bu leen piéger def leen di jël di leen orienter di leen dugal ci moom itam trou noir yi mu yor pour bañ ñu ci kaw suuf mais scientifique yi ñu ngi xaw di ragal lu parce que Jupiter ba mu commencé di piéger astéroïdes yi rek loolu mu ngi commencé di fragiliser ba ragal nañ danañ am jamono bo xam bu ñëwé dootul am kàttan bu mu leen piéger tabu boba ñu romb ko jëm si ci kaw suuf te bu xam bul xam lu muy doon après waaw donc noonu Jupiter mel di piéger yooyu pour bañ mu dal ci kaw suuf yàq li fi ne noonu la nubuwa nekk beneen planète boo xam ni planète nuraniya la énergie yi muy dunde du ay énergie renouvelable énergie yu variable la mais quand même constante parce que lu tax source bi muy jëlee mooy nuuru samawati wal ard nga xam ni mathalu nuurihi ka mishkaat fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأونا كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فحمني يكاد زيتها سخ يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور انرجي بو فاريابل بابو موي اليمنت نوبو موتا سخلا وول انرجي رينوبلابل باسكو تي كونستانس بي موي نيك موتاخ bu ko defee moom itam planète boobu tentation yi nga xam ni viser xelu nit ba muy viser xolu nit ba muy viser bakkanu nit te bu ci nit yàq ko yooyu yooyu ak ak awhamu satira lil waaye Jupiter bu mané protéger la Terre ba yoyu du fi wàcc c'est parce que ñoo bokk ben galaxie kon itam yow itam bu bëggé nu bu protéger la sa yoyu fokk nga bokk ak mom galaxie mais bo nekkee fenen mu nekk fenen du ko mën assurer waaw deug la wala du nono tax ni la ni yaram dafa soxla docteur docteur bi du surveiller santéem bu yëgee tawat ci yaram bi docteur bi la ak xel te dafay soxla docteur bu ko traité looloo tax yonent yi ñëw pour assurer métier boobu waaw bu ko defee ngay gis léeg hmm, ñu ne le diw tànk bi dafa damm ñu plâtré ko buñ ko plâtré ci temps biñ ko war a plâtré ba war ko dindi ñu dindi ko mais du tax tànk bi mën a dox fokk ñu doxal defal ko rééducation ba keroog muy jëlaat formam pour mën a dox la mu daan dox loolu dafay dal xel di dal xol di dal ruux waaw muy am fracture ñoom ñu war ko di plâtrer

ba yooyu di bëgg lor yi nit soxla bu leen piéger daf ba bu ñu waroon gaañ dootuñu gaañ ñu faf jariñ mooy baatu ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim xasanaat waaw wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan lay wax na dëgg gis nga bët bët du gis te dara leerul balaa gis jant niit walla weer niit walla safara niit

moy tax ñu gis li ñu wara gis xamé it li ñu wara xamé wa lolo tax Seyid Cheikh Ahmed Tijani musuma gis mukk ku dëgëre fitni mom moom wa ma kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min warai xijabin aw yursilu rasulan ndeysaan nga naan loolu lu mu doon fekk yaa ngi koy gis bis bu ne sa portable waaw portable bi di da nga ci yëkkati composé numéro wax ci mais bu la neexee nga def SMS yónnee message dëgg la wala du dëgg bu la neexee nga def email yëpp ay façon la yàlla it noonu la amee moom itam ma kaana li basharin an yukallimahu llah illa waxya أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ماي أوبيراتيري جحنا مي دو توجور تي ميم ريتمي باسكو لي لي ابسونس دو ريزو دا فاي ام بو بابا راكورسي يي نك فوك ني يوتيليزي كو موتا ام نيو خن سوخلا وونو جار في يوننتي جار pour servir li yonenti dan servir

ni mu daan doxee lay doxe donc pour yow dara changé wul ci moom te nee na bu ngeen amee fukki at nga yëg ne rawee na la fukki at nga naan fu mu jaar waaw ah. hmm? ah. ba tax na alquran ñaari branchement lay branché yonent bi branche bu njëkk bi branchement bu njëkk bi mooy al dhikr branchement wu ñaareel bi mooy al kalima wala al lisaan xamuloon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril du ñëw rek indi wax yu bi nii rek mu wax ko noonu déedéet parce que ba lañ ko koy wax kalimaat yi alfaaz naamusiye yi moom la ñuy gravé déjà ci lawxul mahfuudam ba noppi اللوح المحفوظ الاصغر بجلي موميتم انرجيم تي اللوح المحفوظ بو ماك بي بون غرافي الفاظ ناموسيه يي با نوبي نك سو كوكو انتربريتال نزل به الروح الامين على قلبك اوكي دابور بوبو موي جور ذكر بي تي موم مو ديغلو كين ديغول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم bu phase boobu paree nag ñu soog ko interpréter ci baat yi mooy fa innama yassarnaahu bi lisanik li tubashira bihi almuttaqin waaw mu jële ko ci verbe sacré yi yóbbu ko ci verbe sublime yi waaw ñu interpréter ko waaw loolooy tax ñépp mënuñu yem ku ne am na lu la yàlla sédd lu mu séddul ñi ci des mais bu fekkee ni dañu wax ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuuna ñi xam mënuñu yem ak ñi xamul mais alquran ni ci charte te moo di ki xam nangoo jariñe ki xamul nangoo jariñu fekk jariñe ak jariñu amul xam-xam amul ki xam na nangoo jariñe ki xamul na nangoo jariñu fekk ñaar yooyu di am xam-xam am na mais fekk xam-xam ñu koy def pour séduire jaru ko waaw tax foog nit nangoo tànn parce que ñaare fi nekk di ko xëccoo ki yàlla yónni ak ki yónni boppam billaay ñoo lakkal ñëpp wax na dëgg foog nga tànn nag ndax yow ki yàlla yónni moom ngay tànn wala ki yónni boppam ki yàlla tànn ci biir mbooloo boobu yàllaa ko waxal boppam wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi'lal xayraat nee na am na ñoo xam ne lañuy wax nit ñi du ñoom mën a ajran wa hum du dëkk donc ki nga xam ni yàlla ko préparé formé ko parce que li nit ñi dul xam moo di yonent tëbul tëb rek ñëw juddu nii ñu ni yonent la mu jeex yonent bu nekk balaa ñëw ci àdduna ñu di ko nommer ruuxam danañ ko yóbbu ca karce ba mu solu fa soldat bu ko defee formation yi mu war a def yépp moom roox bi ñu defal ko ko foofa bu paree ñu yóbbuwaat ko parce que nekkul lu électif mais lu sélectif la maanaam yàlla du xëy xëy rek ni tànn naa diw bala mu lay tànn critères yi war a daje ci yow daje ci yow loolooy tax ki yàlla yónni donc bu ko joxee prérogative yi mu ko jox yëpp te jëlee ko ci boppam nga toog ak keneen ku nga xam ni wóor na la ni yàlla yónniwu ko moo yónni boppam ñale wax nañ la ne matan yahduna bi amrina wa awxayna ilayhim fi ala alxayrat mais am na aimatun yoo xam ni yadcuuna ila annaar wa yowma alqiyamati la yunsaruun yàlla nee na am na yéen ñeneeni giddi yu nga xam ni ku leen topp fu ñu teere ji nga teere ji fa te wóor na ma ni duñu teere ji lu dul safara te yàlla nee ni ku xas yegg ca safara booba wut wàllu nag du tax mu sotti ñu ne kon nag nit ki mooy seet ba xam wolof moo koy wax ku demul àllarba yonent yàlla Moussa da ngay mujj dem dimanche yu Firaaw na loolu mooy tax sunu borom ci alquran moom mii gis yëpp ba gis scénario yi ni muy demee muy melal ñi nga xam ne ëllëg ñu ngay màtt seen loxo yow ma yaaddu zalimu ala yaday ndeysaan yaqulu yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam attaxid fulanan xalila yàlla nee na maa ngi janloog ñu nga xam ni ëllëg dañuy mattu rek di wiccaxu woo leen laajee lii lan la ñu naa wallaay waaja rëcc na ma wallaay bu ma yëgoon du ma rëcc ni diw mi ma ko jënde de jaru ko boobu na xaar ba ëllëg nga di ko soog a def jaru ko te nga ko def fii xam ku ko jar ak ku ko jaru waaw looloo tax ñu wax ni kon nubuwa mën nañu ni cadeau bi gën a cher moom la asamaan yëkkati may ko suuf mu di cadeau bu nga xam ni nag ni mu neexe noonu la jafe waaw lu tax lu gis rekk am na safaanam min kulli shay'in xalaqnaa az-zawjayn waaw waaye ci biir loolu itam du tax nga xaabaabal ba mu jeex parce que yàlla dafa am yu mu bind ci shafaiya am yu mu bind ci witriya yi mu bind ci cha mooy li ngeen di wax naan ma julli gee ba noppi julli shafaar huit heures shafaar mooy la parce que yow li nga ci xam rek mooy shafaar bi mooy ñaari ràkk yi huit bi mooy benn ràkk bi mais yow loolu rek nga ci xam mais yàlla yi mu bind yëpp dafa am ñu mu bind ci shafaar yi nga xam ne dañu am vis ak yu mu bind ci witri yi dara du taxaw ci seen kanam بودي نيمو بندي كي شفعية دن لن دوغل تي واحدية تكو واح واحد واح اثنان واح ثلاثة مي عم يوغا خمني كن دو لن دوغل تي واحدية كي أحدية لن لن دو قل هو الله أحد ما تنيو ني دنيا ام ناولي ما تنيو ننتي نون لسين درجة يأبنتي ñu dugal ko ci alxuruful abjadiya waaw waaw alif ba jiim daal haa mais ay chiffre la alif bi mooy benn baa bi mooy ñaar jiim bi mooy ñett daal bi mooy ñeent haa bi mooy juróom noonu mu mel nonu la daraja yonenti surtout ulul azmi min ar rusul non la sen daraja ëppante nuh momom alif bi ak lim motax mu daj limu daj xam nga ni ko am junney ak di wote te ken wuyuwu la rabbi inni daawtu qawmi laylan wa naharan falam yazidhum du'a'i illa firara junney at illa xamsiina aaman parce que benn daraja bi la am Ibrahim ñëw ñu jox ko ba mu am ñaari daraja Moussa ñëw ñu jox ko jiim mu am ñetti daraja Isa ñëw ñu jox ko daal mu am ñeenti daraja seen chef rasulallah Mohamed ñëw ko mooy nekk le patron ñu jox ko ha mu moom juróomi daraja loolay tax li lay jaaxal mooy lu tax aadama bokkul ci ulul azmi min ar-rusul parce que ulul azmi min ar-rusul Moi, les hommes de l'incarnation divine xam na ñu les hommes de la volonté déedéet firiwul loolu les hommes de l'incarnation divine mooy ulul azmi mina rusul dafa am lu leen seen borom sédd ci boppam mais que mu njëkk a sédd mooy aadam waaye nag wa laqad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya ولم نجد له عزما موتاخ بوكول تي اولو العزم من الرسل دونك جوم تي مو جوم تي لك غرب جي مي نو خونال موم سيت لول صح ايرور بي موم ادم خولال كو يالا سيد يي موم ييب مو جوخ لاكو nga xam ni moom rek la ñu waroon di sujootal mu ñaan ñu sujootal la illa iblisa aba ñëpp ba mu des kenn muy iblis donc opposition foofu la commencé ci biir loolu dégg opposition foofu la commencé mais yàllaa ko def bu ko neexoon iblis du lànk mais aadama liñ ko sedd buñ ko ko séddee bàyyi ko noonu rek àdduna tukki il fallait ñu wattu wutal ko opposant ndax ku amul wujju doo liggéey du dëgg ah, ma ah. jigéen ñaa ngi ciipatu waaye rek <laughs> wallahi wallahi ndaysan billahi ndaysan billahi ndaysan mais mu wutal ko opposi opposant mais li metti yalla moy xam-xam yim ko inculquer nga xamni les premiers élèves yi adama jangal moy ay malaaka ses premiers élèves ay malaaka lañu أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم xoolal آه. boobu privilège دم بأي ملاك يونك سألف nekk سأبوزان دي لنخ pour ben fruit malheureusement fruit lañ ko mais du fruit parce que shajara bi ADN la ñu koy wax shajaratul sont ADN la ADN yi scientifique docteurs yi même ci criminologie bu nit dara ñu ADN bi ndax non كلا بل قادرين على أن نسوي بنانا بفوف دونك غرب بي موي ادين بي تي وقت وو رك لاكو يالا مسني بول بول بول ولا كولا جوخ ليب مايل لا تي تيرم لومو مايول كين ني سجوتل لا ah mu jël ay malaaka ñu njëkk nekk ay les premiers élèves sa opposant di la di la nax ba nga dem fekk lu tuuti mu yàq lu kenn xamul nu mu ton yàlla ni dafa manqué volonté te ku manqué volonté dañ lay boole ku la yar looloo tax fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat laa ilaha illallah ñi defe ni rek dafa wax ay baat ni yàlla baal ko déedéet aadama ñu ngi ko baal bi yonent bi ñëwee parce que il fallait que ulul azmi min ar rusul jaar fi pour jàngalaat ko te mooy seen bàyyi lu tuuti jumloo ko yàlla ni ko foog nga delluwaat ci école bi noox ak la mu ko jàngal ibrahim ak la mu ko jàngal muusa ak la mu ko jàngal isa ak la mu ko jàngal muhammad ak la mu ko jàngal muy juróom ak moom muy juróom benn muy juróom benn état bi donc juróom ñaareelu état bi ñu soog ko baal moo tax suuratul tawba nekk juróom ñaareelu saar ci alquran فتاب عليه simple ها مني والله والله ñu boole kook noox mu jàngal ko li ñoo tuddee motivation ndax na koo bu am motivation mais motivation bu personnel momla la wara am ba nopi motivation bu bu professionnel ndax nit warul détruire amam pour profit carrière am carrière rek tax nga détruire sa âme lool la Adam def carrière carrière kot Iblis naxe ko ko niko shajaratul khuld wa mulkin la yabla koku carrière la te li ko yàlla def mo upp doole ñu nax ko ba mu détruire amam ndax carrière am il fallait que nous jàngalaat ko motivation personnelle motivation professionnelle soog a ñëw leen noox pare ñu indi Ibrahim mu jàngal ko li ñoo vision analogique ah. té moo di ce sa bët di jël li nga gis bul yam ci li nga gis rek mu yobale la del nat la nek ci gannaawam lan la fa lamma janna alayhi al-layl ra'a فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت نبقى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دونك بتم جل نيمو جيس دم تشك مو جيسول تلو ينغو لكو ينغ لكو أبول دولي كون فيزيون أنالوجيك بوب موم لنيو بغون موميد مو جانغال كو آدم ñu joge ci Moussa ñew <laughs> Bah, moom it mu bëgg ñu mu jàngal ko la manière providentielle de communiquer te mooy muy bañ di waxantu te bu waxee wax ba am lu mu jur kooku dafay am fooy branché sa bopp koo gis mu wax ñu fàtte ko rek xamal ni booba kenn branché wu ko mais bu ñu la branché booy wax ku ci na koy recevoir mo lay xamal ni amna fenen fu wax bi ci Moussa lañ ko ñu ci singularité singularité ci savoir singularité qui vouloir singularité qui pouvoir sans les singulariser wéetoo xam-xam mu wër la ne li ngay li ngay wax kenn du ko wax wéetoo kartel mu wóor la ni li nga capable keneen capable ko wéetoo dogu mu wóor la ni loo dogu ni mooy am loola am te keneen amul loola mais mais mais yàlla jox la ko ba noppi nga bañ ko yemale ci sa bopp seddoo koog ñi ci des

الموارد والمشارب تمودي نك لاي فخي با برانشي وو تي يب ييب باسكو كو ورا جاري نييب دو برانشي وو تي بن سورس فوك نغا برانشي وو تي سورس يو باري pour kenn ku ne ak source ba koy ba même nday bu yor domam sax lele mu nampale fi ba ci ak mo yobbu ko ci benen wène bi pour wax la donc juróom ñi ñoo defal Adam ay cours de rattrapage ba mu nangu ni nak ni am amna lu mu tële woon ndax àllama al asma moko tax mu defee ne xamna na ba mu nango nak pour rattraper yalla soga nangu ba ñu soog bal pour wax la affaire bi yombewul noonu waaw moo amna ay baat lan moy tax nit ñi di gis nit rek melni ni dañoo àndatul ak seen sago top ca di dardari parce que bat bi ñu tuddee tasxiir ci alquran parce que nit ñi dañuy jaawale suxriya ak tasxiir bokul parce que suxriya moy lu ñoo tuddee ben chahut wala sabotage wala humiliation moo tax bi ma nekkee ci prison bi maa ngi déglu bis benn rajo ñuy laaj benn criminologue ni ko base violence lan la mu ni base violence mooy excès de de vexation et d'humiliation nit koo vexé di ko vexé ba mu yegg fenn fi wala nga di humilier di ko humilier ba mu yegg fenn fi buy tëb ci sa kaw daf lay bett moo tax ma dégg bis góor gi di ko wax fekk boobu muy waxtaan ak man ci affaire Abdou Diouf bi ak Senghor mu ne ma Abdou Diouf li mu jëfante ak sengoor gannaaw Senghor mu ne ma ñu bari dañ ko doon sax di ko xaw a sànni baat naan moon dafa ñàkk kóllëre ndax sengoor mi ko jox yëf yi mu def ko nii góor gi ni ma nit ñi dañoo xamul lu xew mu ne ma Senghor façon tuutal bu ne def na ko Abdou xeetu humiliation bu ne te am na ci yoo xam ne du ko ko def ci ruq ci kanamu ay nit la ko koy def léeg mu jaaree ko ci kaddu léeg mu jaare ko ci jëfin ba ci ay colam sax parfois mu di ko ci jaar nee na mu mu mu mu gàddee muñam rek ak sagoom mu ne waaye gis nga naka la Senghor dem jox ko yëf yi rek mu commencé nee na Senghor commencé dit bëgg a tukkal àdduna ni mu ngi déconné Cheikh nee ah na ah, ku ñu fay sa bor nga mer la nga excès d'humiliation wala excès de vexation baaxul koo pousse ba rek mu jëm ci sa kaw et eh, eh, voilà nee na motax tax nit ñu dañuy jaawale tasxir ak soxriya soxriya bi moy humiliation mais tasxir sans dépend ci ku ne ni nga koy firé parce que tasxir tabi'i dafa am ak tasxir iradi tasxir tabi'i moy li ñu tuddé la loi du jang nga xamni ci biir àll bi rab yi ku man sa morom rek jariñoo ko affaire doole la eh. mais bu que ni ci wàllu nit la yàlla du bëgg tasxiir bi nekk comme tasxiiru tabia mais des nek tasxiir Iradi. Moi ki nit ki nangoo ommatu sa gannaaw te fekk doful volonté la àndeek Moi moo tax foofu bi beaucoup ko firi exploitation parce que exploitation coco dafa xaw tuuti daal wallaay c'est même plus c'est même plus donc exploitation rafetul motax tax ci walu mystique yi tasxiir moy engagement te moy travailler nit ki ci vocation ba mu jëlal bopam engagement to doo ko sonal lol la yàlla may yonenti ak ñi len don moy ku ànd ak ñom rek ya jël sa volonté bop dem ànd ak ñom ndax naxuñu la waaw waaw tax wa rafa'na ba'dahum nak fawqa baadin darajat li yettaxida baaduhum baadan suxriya mais fofu ci tasxir bi la delu waaw